lépp ma nga tàmbalee ci atum 1973 ci école nationale de police ñi nga xam ni kat ñoom la ñu woon fii di ñoom ñii boobaa léegi am na juróom fukki at ñoom nag ña ngay sàkku ci nguur gi mu gën a jox ay jumtukaay ñi nga xam ne ñooy wattu kaaraangi askan wi ci jamono ji nga xam ne daal lépp a jaxasoo. police nekk fi lu dul pour kaaraange ñu war leen jàppale ci lool ndax mu amul ñëpp fi mu ne dañoo war a nekk alkaati wala ñu jege ko ndax boo ko deful. dëkk bi dina yàqu ndax léegi yàqu-yàqu yi bare na. kii mooy Thomas Ganna moom bokk na ci amicale bi lee ba tax na mi ngi dikkaat ci li nga xam ne daal mooy liggéeyu agent de police ak la ko tax a jokk lan la war a ràngoo. ndax booy ne poli lu poli mooy lu lu lu ñu fomb ba muy melax kon policier dafa war a nekk comme noonu comme ku kuy melax loolu nag royukaay boobu la ñu sunu. suñu rakk yi suñu doom yi nekk ci biir police bi fi mu ne ñu mën a jël loolu comme royukaay. police citoyenneté ak société mooy thème conférence bii lee ñi nga xam nag ñoo fi nekkoon ancien agent ñoom dañ leen jëbal akub raaya ak i lijaasa ci jibila door bi nga xam ne moo lu njëkk police nationale di ko organiser.